kër gi nee jabar du doom ñëpp dox lii lii lii ndexam dëgg la waay cheikh li ma leer fekk ji na waaye négal ba mu fekk ma fii rek fekk na ma fii mooy lijjanti naa ay mbiram bu ñëwee fii fii la may fekk yàkkamti wu ko sax soobee yàlla amul dara jot jaab na lii jaab na ba ba léegi ba waxtu julli fekk ma fii wala xaaral ma ko jot na jot na bu yàgg waaye déglu rek xaaral ma jóg julli xëy na moom bala mooy julli ba pare dina ma fekk fii man seex lu muy dox dina ma ko wax ak li tax mu yab ma ba nekk ci lu ko neex dina ma ko wax soobee yàlla dina xam maa ko jur moom juruma maa ko jur bëccëgu ndara kam bayu tuddam nit jàppalewu ko ci Siapa na ada ya, def iya, iya. iya, Mau maa ngi baax yaa ngi jàpp. sant bu baax. Cheikh sama xarit yi laa demoon. Cheikh Cheikh Cheikh kañ nga may jox cër. Cheikh kañ nga may respecté. waaw lu xew foofu mel. kañ ngay xam Kamu man maay sa baay Cheikh. waaw lu fay di wax nan ngay nees di waxee ak sa ah daa voyagé man booy boobu rek moo war keneen doo sa sa sa sa sa téeméeri unku yi nga dajale sa bopp suba lay rek ji yow ngay lewetali dina ak yow am jom de yow doo doom ji doo doom ji dimbali bayam yow yow doo doom ju nga xamante sini. bu baayam jaaxlee mu taxawu ko barki démb la ma Ablaay ma la ndax lan ndaxum pecc seex ya, ya, lan moo dem pecc jigéen ñi sax peccatun waxuma laa góor nga naan da ngay pecc lu doo nit yaa ni wo koŋ man xaw lu mo jur yow lan la lan lañ deful ñun pour yow mana a luñ deful rek ndax yow seex man maa bëgg a xam loo ma yabe lan ñëw fi sarak jigéen la warna la pujom jom moo ñëw ba ci man lima papa Cheikh ci kaw la newoon di fecc ma lay tere li ma lay tere. yaa ngi soog wax ma lay déglul du ma wax ngay wax man doom du ma tontu su may wax da ngay noppi nan la lay teree li ma lay tere loo nga xam bëgguma sax nga koy def nga ñëw ba sama ëtt di ko fi def te liy wax ji mooy fecc ak fecc mi danga koy ba danga koy teg ci suuf boo bëggee nu dëkk boo bëggee ma considéré la comme doom xaaru man maay sa baay dan ni barke bay, liggéeyu nday dëgg la mais barke baay sa baay bu la ñaanalul sa dara du barkeel yow la la doo ci tekki tey doo ci tekki suba métier ma bëgg nga def ko moom ngay def par la force ndax man maa la jur pa man métier maa koy def maa ngi liggéey li ma bëgg ngay def xaw ma loolu de li ngay wax dégluwuma ko sax li ma mën a comprendre mooy yow yow kañ nga may comprendre kañ maa ngi def lu ne pour nga comprendre mais yow mënoo ma comprendre liggéey bi nga wax maa ngi koy def. seex seex. liggéey bi nga wax am pecc dum la gëy am pecc dum la gëy de boo boo ma dee wax loolu fii ba suba ma leneen loolu liggéey lu dul pecc mën naa cee ànd ak yow am pecc dum la gëy sit ci góor doo ko def. mais man doo ko def tey doo ko def suba. mais man danse bi maa ngi wax loolu maa ngi koy liggéey. ban liggéey nga ko booleel. liggéey boo booleel fecc. waaw man chaque jour ma romb la sol sama tën. ban tën yi su may liggéey. at at lee ban të ban at lee ab la yow sa patron woo ma lu ma waxul ci yow da ko fàtte non ñaari fan yi dama amoon ay répétition parce que ah li may seex seex seex seex yëngal sama xol de man kañ laa daan wax nga ñimee ma nii di ma ak di def ay manière xoola sa kaw laa jëm de man duma sa morom bu may wax yow da may déglu nga fulaal li ma la wax est-ce que comprendre foofu laa yam ak yow nag déggal li ma la wax fecc bi day dakk wala nga génn sama kër ca biti man du ma rek ko fecc kat surtout ci góor saraka ngi nii ci njàng bi ma ko teg ci la ne gëm na ko bu soobee yàlla da ciy tekki ndax ñaanal naa ko ci yow nga ni doo nga ne am fecc ngay toog doo fecc doo fecc tey doo fecc suba wala ci nga koy mais du doon sama kër di nga xam man la jur sa bëyum tudd nit jàppale wu ma ci waaw yi ngay wax la wax rek dama la ko war wax ndax sa man eh déglul noppil man sa baay laa lu ma la wax rek dama la kaa war a wax fecc mi day dakk ci nii mbaa ci naa man xaw ma lu dem fecc ana góor nag naan naan naan day fecc yow jigéen ñi sax feccatul. fecc ñu fecc jigéen la. dance li kii la ñuy def ni eh, lay eh, dimbali ma dance américain ak dance all man man man lijjantiwuma loolu man jaamu yàlla laa gëm liggéey jariñ sama bopp man sa baay la maa gis may fecc wala gis sa yaay mu fecc wala nga am menn mbokk muy fecc doo fecc seex doo fecc tey doo fecc suba wala doon fii defe nga naa wax benn doom naan lima ma bëgg loolu ngay def seex li ma bëgg loolu ngay def tey loolu ngay def suba waaye eh, du ma wax nga may tonte boo ma tonte nga man dinaa wax jenn doom di ma buma bu ma waxatee nga tont moo ma def la bon dinaa xaar ndax da ngay fecc wala doo fecc yow wa lii kenn xamul lu doon waaye doom yoo xam ni léegi dañoo jóg pour pour diranteeg mbagg seen baay bu leen seen baay waxee ñu lu def liñ bëgg la ñuy def man du ma baay boobu li ma bëgg ngay def ci nii wala ci naa wala man a yow duñ ko digaale Cheikh gëj bon waay day yées man xaw ma doon jariñ sa baay yow ma leeroon ni boo juddoo nii ngay mel ma rey la duma la ngénte sama bëyum tudd mi ma bañ ko te ñàkk ñàkk jom. koy taal. eh Taba. ndax la bàyyi taay ah taay gars yi mooy loolu dëkk bi gars dara amu fi. laay foofu fee de bàyyi ins bi tëju nga. damay ah mooy may toog sama gàlle defu ma daa mooy loolu fii ponkali ne fii ak ñi politique fii nii surtout seen maire bii ñu war a jàppale jeunes yi pour ñu liggéey waaye defuñu ko. si si si mais mooy loolu de yaa ma gën a xam ne tey xanaa affaire élection yi daa yënguwaat dafa te la ñu bëgg a rey dëkk bi foo tourné ñu ngi meeting di yàq xaalis rek te jeunes yi nekk fii nii am expérience pour exploiter seen projet waaye amuñ ku leen jàppale ah ok noonu la fay demee de pour man de pour man man sama wàll man sama man xam nga lan booy mairie bi toog fii quoi su indi suñu mairie bi moo nga moo toog nii inspi ko joxaat deuxième mandat parce élection yi jub si da koy politiquer élection yi moo jub si da koy politiquer donc bilaahi barke ala comme sa projet seen seen projet bi nii yow kël booy kël booy kël bi gannaaw fexe ma kër feneen boobu noonu waaw waaw kël waaw si waaw comme seen def nii dañu ci war a jàppale bilaahi non si ñun insi mooy loolu quoi ñun dem nañ ba wax moom am nga ngaay si boppam nii bilaahi am nga ngaay kii ni fi jëlee gii teg fi keneen mooy loolu loolu la kay mais am nga ne xam xamee ne jeunes yi ñoo ko ñoo ko lii nii ñoo ko fal dina mën a jàppale yooyu noonu mais ngaay ma wax la leen quoi ngaay dafa nekk dëkk artiste ba pare nekk dëkk artisanat. waay booy ngaay booy foo demee booy moo bi entier baay soo nee ngaay ngaay laa dëkk gaay danaa ngaay. mais baay gars yi tamit wala boog nañ jéem a wax ak maire yi baay mu jéem a jàppale artisanat yi baay ñu jéem a jàppale ñu sa suñu aar yi baay ndax ngaay mën a demaat loolooy wax ci a mu gën a nekk baay man gaw ma de baay ah. nekk jeunes yi jeunes xam ne su ko exploité dina jur leneen si dëkk bi. mooy lool mooy loolu waaye ñu ko def topp si politique bii a di maye xaalis du dégg bëccëg. mais maire bi toog moom inspi suñu maire bi moom. waaw ah. a ko buux sama maire moom nee na mu ko jox xaalis bi lekk waa gees élection yi ku mu neex leen voté. yow da <laughs> nga <laughs> ma ma ma waaye. bis ma amee gàddante. dinaa dinaa dinaa xeex dinaa xeex lu bari débat yow booy sax bare may débat dinaa yow booy ndeket yoroo carte débat yow booy yow non non eh, eh déposé naa oh, eh déposé naa bilaay yow boo ba gaa déposé naa non léegi ngeen mais yow eh, doo voté mais eh, yow doo voté passé ko laa voté léegi ngeen waay yow sama waay sama waay gaa gaa eh léegi ngeen déposé naa tiyaawal léegi ngeen ba man est-ce que duma dem xooli kël suñu ko de dañoo war a dem répété ji ma ak moom répété dañoo war a dem répétition boobu tey maa ngi bon saa booy baa ngi nii ay ah, frère léegi nag bëri taxawu. fii booy bi sànq ba de muy toog fi ay débat politique booy bi yorul sa carte d'identité bàyyi. bon eh grand frère bon eh kër. Fra déposé naa de. bilaay déposé naa eh léegi mu génn. non déposé naa léegi mu génn bilaay. parce que ma ma bokk ma bokk

aar la quoi aar moom xamul loolu ñoom ay mag njëkk yi moom paa yi moom. loolu la demee ñoom seen i jamono li ñu doon dund ak. bilaahi boo ab boo mënuñ ma sëbee de waaye man sama parent sonaluñ ma dara booy man booy lu ma neex laay def. man damaa réew booy. sama parent dañ maa réewal lu ma neex laay def. ay man ay ay paa ma tere woon paa bi waaye paa bi su ma tere woon dama koy kii de lan paa bi sa papa nag paa bi amul amul amul amul respect ci moom sax. paa bi lu muy lan paa paa i jeunesse ba pare bëgg bàyyi booy lu nga nekk booy doo dund sa jeunesse paa dañu waxante dëgg taala paa yi paa bi na la nga dund sa jeunesse. man xamal ma ne paa bi da nga waxtaan ak moom rek denc dinaa ko du may da ngaa war a dem xëy ji bàyyi wala sama waay. Ah, ngoon maa ngi répété ngoon maa ngi répété gars yi. ngoon ngay ànd di nga naan ma xëy mais solo sa tënk rek nga dem si même su nekkee sax bàyyi patron bi nga jéem kaa mu mën a kiifal paa bi mooy loolu. non loolu loolu problème dama paa bi pour moom. day tàng tàng mais mooy loolu de. mais kon yox la baay ak engagement si lu may def. kon ñu dem bàyyi yox la baay mooy loolu de. dem répété waaw. yaa ma gën a xam man man damay man damay kon damay dugg gàll de. ah dëgg waaw waaw ñu ngi lay bàyyi bàyyi ñu ngi dugg bàyyi. mooy loolu waaw léeg-léeg waaw. te te te lan nga. bàyyi bàyyi waxuma loolu utal carte d'identité <laughs>